mbirum kër la mbirum néeg la li nga xam ne ci mbedd mi la euh, tey ñoom seen argument bu ñu développé day mel ni dafa am ingérence pouvoir public bi ci vie privée wu nit ñi du moment où viol bi bàyyi nañ ko dama jàpp ni mbir mi dañ ko waroon na banque mu frankulaay mais est-ce que ragal dëkk bi yëngu euh, war na tax ñu bañ a exécuter une décision de justice est-ce que c'est mm. un mm. man du man maay am ci loolu. man su ma nekkoon non juriste la su ma nekkoon au pouvoir xam naa man du ma koy doxalee mais tey ci boppam moom moom ci boppam loolu la ñuy xaar ci gouvernement bu ñu la jiitalee mhm. moom mooy dañuy xaar yow bu ñu tollee ci diggante mhm. nga jël décision yi nga xam ne ñoo gën ci askan bi mhm. ñoo gën ci dëkk bi décision de justice bu ñuy exécuter mais du ñu exécuter pour exécuter lu koy biral moom mooy lu tax ñoom Karim Wade ak ñoom Khalifa Sall ñu tëj leen ci décision de justice moom mu delluwaat ne da koy xoolaat parce que dafa xam ni justice ci boppam amul sens amul signification que dans un contexte déterminé loolu tey moo ñu war a yóbbuwaat aussi ñu xoolaat ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi ci même situation bi xool ni ñi est-ce que fu ñu leen jaarale waruñu fa mën a jaarale li ñëpp coow li jeex. mu bañ a am seen. mu bañ a am xaaj ak seen parce que mënoo ñëw parce que aussi ku wax feeñ ah, comme lu ñuy wax ci wolof euh, nga ne ku bëgg a bokk ñëwal seet si moom ku ñëwul li nga xam ku gedd sa yaay aye ah ña ko dégg wuy si <laughs> nga régler seen cas ñeneen ñi nga taxaw donc finalement aussi dañuy jënd république. nekk ci monarchie nga ne buum yow yaay buum yaay buubi loolu aussi maanaam dégg-dégg mënu ko nangu citoyenneté mënu ko nangu donc ñay wax ne est-ce que décision de justice dañ ko war a ci nañu jàpp ni njeexital justice justice euh, du ay nit ñuy sol robe ak ay décision yu ñuy bind moo ko tax a jóg justice lenn rek moo ko tax a jóg moom mooy du moment où ñun dañuy dund te àdduna nu mu demee moom mooy du ñu bokk gis-gis du ñu bokk ay intérêt bu ñu demee ba suñuy intérêt wala suñu gis-gis féewaloo ñu seeti fu ñuy ne mbaxane fa lay doonee benn bu ñu attee ba mu farankulaayu ñépp tënku ci mais finalité bi njeexital bi moom mooy rek fexe ba quel que soit désaccord bi violence bañ a am ñu tënku ci loolu donc finalité wu exécution ou décision de justice moom mooy dalal société bi ne yow tooñ nañ la ñun collectivement fajal nañu la ko mais tey boo jëlee benn décision bi nga xam ne boo ko exécuté mais ay bakkan rot ci ay milliards yàqu ci ak kenn xamul fan la ñuy yóbbu nga xool tey nga ne mais infraction bi est-ce que 2023 est-ce que am na pertinence sax ñuy wax loolu laaj bi day samp peut-être loolu la ñuy daw moo tax ñu samp këram ay barrières tere ko mu déplacé wu en tant que juriste loolu aussi. mais loolu détention arbitraire la moi je l'ai dénoncé au niveau du groupe de travail de l'ONU sur la détention arbitraire non pas parce que je suis dans une posture de défendre Ousmane Sonko euh, mais État du Sénégal en tant que citoyen l'a interpellé laaj leen à travers une lettre ouverte nañ ñu jox les fondements les bases yi nga xam ne ci la ñu sukkandiku lan mooy cëslaayu lu ñu def parce que tey bu ñu ko defee Ousmane ko beneen leader bu waxee li nga xam ne ñoom d'accord uñ ci peut-être mën nañ ko def précédent bu mel noonu mënuñu ko bàyyi muy installé moo tax ñu jàpp ni loolu il fallait ñu leeral ko état du Sénégal moo am responsabilité tey bu dara amee mu jox ñu cëslaay bi wax ñu ci fan la sukkandiku pour def lu muy def fii ci Sénégal euh, régime bi fi am pour ñu xañ la dem ak dikk moom mooy ñu woo la placer le sous garde à vue boo nekkee garde à vue dañ lay tënk ci dure bi mais durée bi c'est toujours limité dans le temps depuis antiquité romaine saa yu ñu xañee dara c'est limité dans le temps benn mais na fait ñu placer le garde à vue day ouvrir ay droits nga mën a gis médecin aussi sa avocat mën a ñëw jege si la wax ak moom mais mënoo ñëw jël nit teg ko même bu nekkoon étranger bi nga xam ne dëkku fii gis nga terroristes yi nga xam ne ñoo daaneel tour yi ñoom ci seen bopp amoon nañ droit accès à un avocat. en septembre Guantanamo c'est le débat s'est posé Abu Ghraib en Irak même les prisonniers aussi ils étaient sous un régime même dans le droit de la guerre bu ñu la jàppee dañ lay placer sous le régime de prisonniers de guerre mu ubbi benn protection pour yow beneen bi moom mooy tey bu ñu la xañee dem ak ñëw bu nekkul garde à vue mais dafa war a nekk décision administrative mais décision administrative c'est toujours limité dans le temps amul benn décision bi nga xam ne day. loolu la wax sax ne nañ c'est une mesure administrative. non mais mesure administrative nag tey dégg naa leen ñuy wax naan que moom ci boppam moo ko waroon a contester benn noo mën a jàppee nit ay avocat mënuñu jot ci moom nga ne moom moo waroon a génn contester loolu amul maanaam beneen bi moom mooy état moom mooy jëf. c'est parce que état moom mooy jëf moo am responsabilité que saa yu jëfee mu génn yow yëgal la li ma def fii laa ko sukkandiku jox la argument yi en fait et en droit ba pare yëgal la ne boo ci d'accordul mën nga dem joytu ko devant tel juge notification des voies de recours loolu yëpp amul ñu ñëw taxaw en encerclé ñu wax déedawaay ñu génn naan ñu ay principe u maintien d'ordre ban principe u maintien d'ordre ban principe u maintien d'ordre moo may wax ba Sénégal mais même Ukraine ak Russie seen guerre amul benn principe bu maintien d'ordre bu lay may nga jël nit encercler ko euh, donc de manière illimitée loolu ña ko defoon en ex-Yougoslavie mais dañ leen jugé pour crime crime de guerre on se rappelle des sièges de Sarajevo ñu jël ville encercler ko bàyyi ñu leen ñu dem bàyyi ñu leen ñu dikk ñu nekk en plein hiver amuñu sauvage amuñu ci man ba may def suma doctorat j'ai eu la chance que kenn ci ña nga xam ne ñoo doon diriger eh, travaux yi muy euh, Théodore Meron moo nekkoon président pour ex Yougoslavie euh, tribunal pénal pour l'ex Yougoslavie j'ai assisté à des audiences où euh, donc yi nga xam ne on parlait des crimes de guerre en ex Yougoslavie mooy c'est le tribunal qui jugeait l'ex président Milosevic tout ça donc àdduna daa am ci ay ponk ak charte yu muy doxee ñoom ci seen bopp ay juriste lañ xamuñu lu nit xamut ñun tam xamuñu lu ñu xamut ñoom bu ñuy wax boo ko seetaan boo ko seetee rek ci troisième mandat bi ak ci nu sawaay mujj dumba yoo lu ñu doon wax ñoom da ngay jàpp ni est-ce que ñoom tey bu ñu waxatee mën nañ ko gëm laaj boobu mooy sampu. Euh, ma interpellé aussi ci beneen même bu dee tuuti mu ngi may euh, wax ne temps bi xooj nañu ci propos yi nga xam ne ni Birame Souleye Diop. tenir na ko ba ma jural ko tey garde à vue propos yooyu ak lu ko ci lu ko lu ko ci fekk. waaw man dama dama jàpp ni lu lu mënoon ñàkk la man duma ci sori lu mënoon ñàkk la. Mhm. mais du moment où ba mu ko waxee jën na. rëccu li nga xam ne moom la wax. Mhm. dama jàpp ni mbir mi frankulaayu noo waroon nañ koo fàtte léegi nag waruñu fi nekk mhm. euh, di ji di yeggal mbir mi fu mu yeggul naan mën na créer incident diplomatique yooyu ay wax yu yàqu la demal Côte d'Ivoire nga xool ñoom politiciens ivoiriens yi lu ñuy wax di ko teg ci chef d'état français wala yeneen yi nga xool da am na yu gën a garaaw yooyu waxuma ne dañ koy encourager mais amool kenn ku fay dem di jooytoog yooyu parce que tout simplement daam yi nga xam ne du cëru sax chef d'état étranger muy dugg ci ay propos même extrémistes yi nga xam ne c'est en politique interne de notre état parce que day mel ni genre immixtion d'une certaine manière léegi naan wooy mën na créer incident diplomatique mais bu créer incident diplomatique nag ñu waxante dëgg est-ce que président Macky Sall moo wax propos yi wala keneen moo ko wax keneen moo ko wax moom bu ko jaralee loolu mais na jël avocat mu yónnee ko fi mais Sénégal warul nekk fii naan Sénégal mënuñu ñëw contrôler propos yëpp yi nga xam ne moom la ñuy wax ci chef d'état wu monde yi donc ça veut dire quoi suba keneen bu waxee dara ci Poutine ñu ko donc dama jàpp ni mbir mi jarul judd jarul guddal euh, wax na luy am am na wax na ko war nañ ko yemale fii mu jeex euh, ñu jëm si ci élection présidentielle temps bi xoj nañu en une minute rek parce que tamit euh, sept mois à sept mois de l'élection présidentielle président dematul troisième mandat bi ngeen doon ragal génn programme nag jot na en une minute rek waaw ñun suñu suñu programme taxaw na mhm. Euh, lu ñu jàpp moom mooy suñu programme bu ko sénégalais yi comprendre bu soobee yàlla jàpp nañ ni le 2 avril ñun ñooy wutu Macky ci bopp réew mi parce que dañu yor programme bi nga xam ne jàpp nañ ni moo gën ci askan bi te nekkul li nga xam ne dañu fay pour ñu bindal ñu ko mais dañu juddu fii yaroo fi màggee fi gis tolluwaayu dëkk bi yàgga xool nu société bi di doxee ñoo xam ne lii la bëgg ci tënk bu ma ko doon tënk man fii Sénégal Macky Sall bu waxee état day ne day protéger mais day protection bi moom moom mooy génne force de sécurité ak de défense yi man un état protecteur moom laa bëgg indi fi Sénégal mu nekk état social mais nekku rek bu lay protéger ak ay forces de défense ak sécurité parce que ça c'est évident mais bu lay protéger boo tollee ci diggante mooy protéger ñi nga xam ne ñoo gën a néew doole moo lay protéger yow suba boo tollee diggante wala bu la feebar dabe ñu sécuriser ko loolu yëpp tey moo tax ma jàpp ni fii protection bi waruñu ko yemale rek ci protection sécuritaire dafa war a nekk état bi nga xam ne day teg filet de sécurité loolu ci anam yu ñu ko nar a defee ñaar la euh, bu ci njëkk moom mooy tey fii ci Sénégal euh, am na loi bi nga xam ne moom la ñu ci revenu pétrole yi dan lañ ko nar a redistribuer man ci laay sukkandiku parce que man li ma gëm man moom mooy Sénégal fii ñoom ba ñu ku ba ñu jël programme bi di ko jënd bitim réew laa leen ne man un Sénégal convergent vaut mieux qu'un Sénégal émergent mmh. un Sénégal convergent du dara lu dul boo jëlee Sénégal émergent ñoom fu ñu koy nattee moom mooy croissance ñaata point la ay chiffres ñu koy dégg depuis ba ñu juddoo mais dara du changé mmh. tey laaj buy sampo est-ce que sénégalais bi ñuy dundee 2023 moo gën ci lu ñu doon dundee ci at yi passé léegi pour tënk Sénégal convergent moom mooy au lieu ñuy natt ay chiffre croissance lu ñuy natt moom mooy bonheur maanaam mieux-être est-ce que seen dundin tey moo gën moo gën a mucc ci ayib ci dundin bi nga xam ne moom la ñu amoon ci seen dundinu sénégalais ci seen dundinu sénégalais ma yaakaar ne Sénégal loolu lañu soxla mosuñu fu njort ne dinañ am pétrole ñu am ay revenu wu pétrole am na yeneen xeetu taxes yi nga xam ne aussi dinañ ko créer teg ko ci ñi opérateurs yi ak ci yenn numérique yi ak yenn transaction yi nga xam ne dana financer effectivement sécurité sociale boobu ba en tout cas kenn du fi dee parce que juste amoo xaalis mm-hmm. kàddu gu mujj waaw kàddu gi mooy di leen jaajëfal ci dalal bi. Mhm. di nuyu auditeurs yi ak euh, surtout internautes yi ci topp bi. Mhm. et di leen jox dox daje ci yeneen jamono. jërëjëf jërëjëf may rappelé ne émission Scoop Magazine doon dalal maître Abdoulaye Tine président union sociale libérale di candidat. à la euh, présidentielle de 2024 ma leen di gërëm yéen ñu doon teewlu di gërëm waa régie tuuti Ismaïla et tout di leen dig daje beneen yoon